bismillahi irrahmani irrahim aousubillahi min alsheytaani irrajim laa hawla wala quwata illa billahi alali alazim inna alhamda lillahi nahmaduhu wa nastaciinuhu wa nastahfiruhu wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa sayyi'aati acmaalina man yahdihi allahu fala mudilla lah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 ki gën si mbindeef yi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla jàmma di leen ñaanal yàlla mu defal leen wér defal ñu ko defal ko mboolem jullit ñu fas yéene ñëw tey ci alxames ji ci émission suñu diine ndax kat suñu boroom moo wax ci alquran fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin mu nekk yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam del fàttali jaam ndax fàttali bi ngay fàttali dina jariñ jaam kon nag mbokk yi tey nu ñëw rek fëskee ne indi si li nga xamante ne nii moo xew ci jamono jii ñu àtte ko nag ci àtteb diine ndax kat suñu boroom subhaanahu wa taala moom moo ñu digal ci suuratul asri mu ne audu billahi min alsheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina aamanu wa amilu alsalihat wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bilsabri suñu boroom subhaanahu wa taala moo wax ci suuratul asri al asri di firi waxtu takkusaan ñu koy firi tamit mooy temps mooy waxtu rek suñu boroom nag dafa wax ne jullit yi am nit ñi am na ci ñoo xamante ne nii bokk ay jullit lañ waaye dañuy dund rek ci pertement mu ne illa lazina amanu ba mu des gaa yi gëm yàlla ñi wa amilu saalihaat boole kaax ñuy jëf ay jëf yu baax watawaasaw bi xaq ñuy digale dëgg di wax dëgg watawaasaw bi sabri ñuy muñ tey muñalaate mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwaat ci xadis ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw yasmut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ci xadis mu ne képp ku gëm yàlla gëm bés pénc mooy gëm na di dee gëm na di dekki gëm na dinañ la atte te gëm na dinañ la fay la nga liggéeyoon yépp mu ne kooku day wax lu baax mbaamu noppi mbokk yi gis nañ ne jamono ji àdduna bi ñëpp a tiit nañ ñëpp a jaaxle nañ feebar baa ngi fi ku nekk di xalaat naka la mën a def ba feebar bi jóge fi te ñu nangu ne ñu ñëpp ku dib jullit rek xam na ne suñu boroom moom mooy dogal ndax al imaanu bil qadari xayrihi wa sharrihi ndax suñu boroom mooy dogal dogal bu neex ak dogal bu metti mu ne bu dogalee lu neex ci yow mu ne na nga sant mu dolli la mu ne bu dogalee lu metti ci yow mu ne na nga muñ ñaan ka mu teggil la ko indil la leneen lu neex waaw kon kooku nga xamante ne nii moom moo dogal ci ñun moom rek mooy dogal ci jaamam kenn du ko mën a dindi waaye nag jamono ji nekk na jamono joo xamante nii nit ñi dañuy waxante lu bon di tegante lu bon di jiiñante lu bon te suñu boroom dafa wax ne nit ki bu déggee information naka leerlu ba information bi leer mu koy door a tasaare te jamono ji ñu toll gis nañ ne ku nekk dangay yàkkamtee dégg benn benn xew-xew rek ba partager ko te yu si bari rek buñ koy partager du nekk dëgg loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal nañu nañu kuy wax na nga xalaat si li ngay wax rawatina nag nga jël tuuma tekka ci sa mbokkam jullit mooy nga wax ne diw moo def lii te loolu ngay wax dara du ci dëgg suñu boroom dafa bëgg kuy suturaal sax doomu aadama bañ naka ba ne ay nit bu ñu njaaloowee kii nga xamante ne ñëw fekk leen ñuy njaaloo mu gis leen ñuy njaaloo kooku sax dayul si seede nee nañ mu génn na ñii ñu ngi njaaloo kon mbokk yàlla bëgg na am na sutura te bëgg na sutura mu ne kooku ko gis il faut mu indi ay seede ñooñu tamit ñëw gis ñoom ñaar ñoo ñuy sëy di mooy yàlla ñu gis leen ñoom ñaar ñu mën a ami seede ñu wax ko kon mbokk yi xam ngeen ne loolu jafe na am ndax nit bu ñëwee ba gis ay nit ñuy njaaloo nit ñooñu xam nga ne duñ fi taxaw di xaaraat keneen waaye nag suñu boroom ndax man satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaama yonent bi salaa moo wax ne képp ku suturaal sa mbokkam jullit suñu boroom dina la suturaal ëllëg yowma alqiyaam kon mbokk yi lii nga xamante ni moo xew ci réew mi mooy jiiñante bi xaw xawwantey sutura yi weeraate yi suñu boroom bëggul loolu suñu boroom ku am sutura la siy jaamam kon ñu nit dañoo war a am sutura suñu diggante te kat gëm yàlla dëgg-dëgg ñu ngi koy defe si diggante jaam bi axab jaamam te gis nga tuxma mooy teg tuuma ci doomu aadama rawatina ci sa mbokkam jullit yàlla bañ na ko sax ba wax ne nit ki bu génnee àdduna nañ wax ay baax baaxam te bàyyi ay ñaawteefam allahu akbar mbokk yi suñu boroom moom mi nga xamante ne dara ump ko moo xam lépp bu doon lu luñ ko def mu fayu kon kenn du dund waaye si yërmandeem rahmaan rahim am na yërmande fii si àdduna amaatal ñi koy jaamu si kaw suuf ëllëg yowmal xiyaam yërmande yàlla nu si yàlla boole sa ñooña kon nag mbokk yi nañuy rafetal àdduna bi dara yàggatu fi ñi ñaa ngi wax ñii ñu ngi dee ñii ñu ngi feebar ñii ñu ngi juddu yàlla mooy programme te li mu programme nit mënu kaa dindi waaye nag nañ moytu yàqalantey der yi dañuy sax si dëgg ndax suñu boroom comme ni ma leen ko waxee sa commencement ba sa suratul asri yàlla dafa bëgg kuy dëggu ndax yàlla dëgg la alxuraanam dëgg la yonentaa bi sallallahu alayhi wa dëgg la kon képp ku gëm yàlla tamit dangaa war a dëggu te ñuy moytu xaw wi sutura yi ñuy suturaalante ndax kat nañ bàyyi xel ne kii falu tey ëllëg day folleeku kenn rek moo fi sax si faloom mooy suñu borom subhanahu wa taala ay président jaar nañ fi lu mu metti metti dem nañu yii président wàcc nañ yii président génn nañ sax àdduna te nit ku nekk loolu daf ko war a bàyyi xel kon bu yonent bi di wax naan képp ku gëm yàlla mbaa képp ku gëm bés penc danga war a def rafetal ndax kat sa jëf yooyu yëpp ëllëg dañu koy àtte te li ñuy àtte si suñu sa kanamu borom dara du si mooy yàlla ndax yàlla day xam lépp te ku def lu baax nag am lu baax rek fa may ya man yaamal misqaala zarratin xayran yarahu wa man yaamal misqaala zarratin charran yarahu yàlla moo wax mu ne képp ku def lu baax lu mu tuuti tuuti ëllëg dina la ko fay ku def lu bon itam dinga ko fa gis kon nag yàlla na nañu yàlla boole si ñi nga xamante ne nii dañuy toppali yàlla bëgg di def li yàlla bëgg te yàlla bëgg na ñuy suturaalante yàlla bëgg na ki ëpp doole sa moroom yërëm ka yàlla bëgg na tamit ki nga xamante ni moom lañu ëpp doole mu bo moytu joxe cër ki ko jiitu ndax kat nañ bàyyi ne xel ne ak fal dafay jóg fal gi fi dul jóg kenn la mooy yàlla moo tax mu ne qul illahuma malikal mulki tuutil mulka man tasha wax leen ne yàlla rek mooy buur te mooy jox nguur ku ko neex kon ki mu jox nguur bu mu yaakaar ne nguuram googu dafay sax déedéet day jeex moo tax mu ne tuutil mulka man tashaa mooy fal ku ka neex wa tanziul mulka mimman tashaa tamit mooy wàccee waat ku ka neex waxtu wu ka neex ah ni mu ko neexe mu ne waat wa tuizzu man tashaa mooy màggal ku ka neex wa tuzillu man tashaa mooy wàccee suufeel ku ka neex bi yadihi alxayr innaka ala kulli shay'in qadir mu ngoog yàlla rek moo yor yiw moo yor lépp ndax moo man lépp kon nag nañ bàyyi xel loolu nañu bàyyi xel ne àdduna bi yàggul dañ fiy dund dañ fiy jóge te li am solo mooy liggéeyal sa àllaaxira te kuy liggéeyal sa àllaaxira doo def lu dul lu baax man kaana lillaah kaana allaahu lahu ku nekkal yàlla suñu borom ëllëg suñu borom nekkal la te ku bëgg nekkal yàlla nag dangay nekkal li neex yàlla te li neex yàlla mooy alxaq te alxaq mooy vérité mooy dëgg ku nekk ci lu dul dëgg nag yaa ngi si musiba moo tax yonent bi waxaat ko si sallallahu alayhi wa sallam ci xadis aleykum bi sidqi mu ne na ngeen sax ci dëgg fa inna sidqa yahdi ilal ilal birri mu ne dëgg dalay yóbbu si ak mbaax wal birri yahdi ilal janna gis ngeen mbokk yi lu baax nag da lay yóbbu fan àjjana mu ne wa iyaakum da ngeen moytu nag wal kajibu ci ay fen fa innal kajiba ndax ay fenkat yahdi ilal fujur da lay yóbbu si lu ñaaw dalay yóbbu si lu bon te wal fujuur yahdi ila naar te lu bon def la yóbbu safara kon nag moytu leen mbokk yi loolu lan amoon tey di leen ko fàttali di ko fàttali suñu bopp di leen si ñaax di si ñaax suñu bopp di ñaan yàlla suñu boroom yàlla na nu yàlla defal dégg di ñaan yàlla suñu boroom bu ñu defalee dégg yàlla na nu yàlla defal ñu topp ko def li mu bëgg bàyyi li mu tere kon bëggaluñu lu dul ñu dund si dund gu neex kon mbokk yi ñu ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaan yàlla suñu boroom moom mi nga xamante nii moom ab dogalam moo koy def moo fi indi feebar bi yàlla moomu yàlla na ko fi yàlla teggiwaat di ñaanaat yàlla suñu boroom moom mi am salaam di jàmm te réew dañ koy defar mu am jàmm ndax réew mi bu dee ñenn ñi amuñu jàmm rek mën naa dem ba loraar a ngi si des ndax li olof naan ay du yabu si ay si si bopp boroom te Sénégal gi suñu Sénégal la kenn moomu ko ñu ñëpp ñoo ko bokk kon ku nekk dafa war a bay sawaar bu ko defee réew mi jëm si kanam bu ko defee ñun itam ñu nekk ci jàmm te jàmm si la lépp xaj fu jàmm amul avancement du fa mën a am bu dee ñii dañuy gas ñii di suul ñii di def lu baax ñii di yàq loolu moom avancement du fa mën a am kon nag dañuy ñaan yàlla suñu boroom yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu ngi ziyaar suñu kilifa diine yi di leen ñaanal yàlla seen mission yi ñu am ci kaw suuf yal na leen ko yàlla oyofal di ñaanal itam kilifa ki nga xamante ne moo jiitum réew mi yàlla def ko moom itam ba mu dal yërëm ñi mu àndal liggéey ngir am réewam te bañ liggéey ngir boppam liggéey ngir am réewam liggéey ngir boppam yàlla na ko ko yàlla defal di ñaanal itam suñu mbokk yëpp mbokk jullit yëpp fu jullit ne rek ñu ngi koy ñaanal di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu